chèques 100 millions 68 000 yi voilà tout d'abord je remercie la LONASE de m'avoir permis la chance de gagner ça waaw donc aussi di ñaax yeneen tamit pour ñu jouer ñu tenter seen chance pour gagner voilà parce que man de temps en temps damay gagner parfois une fois par semaine la fois passée dama demoon Tëngéej Rufisque ma seet sama tonton après ma romb benn kees ma ne pourquoi pas xaaral rek maa ngi woon 1000 francs ma ne xaaral ma dugg ma jouer bi ma jouer après si laa gagné million millions centimètres. chance la rek ah comme ñëpp mun nañ ko gagné aussi bu ma gagné man maa ngi naan lii moom est-ce que dëgg la wala du dëgg. vraiment donc chance bi ñëwoon na si man. dëgg yàlla maa ngi siy sant yàlla bu baax aussi. Mhm. di ñaax aussi ñeneen ñu ñuy joué. bon 100 millions yi nag bëgg naa si def ay projet macha allah bëgg naa def ay projet d'autant plus que petit commerçante la donc dinaa gën a mun a yokk sama liggéey. ñeneen ñi aussi mën see gis seen bopp investir si incha allah. dañu naan c'est pas vrai mais c'est vrai peut-être ku nekk ak sa chance de temps en temps nga jouer nga bañ a décourager parfois sax fi ngay yaakaar ni doo gagner fa ngay gagner.